ñoo ngi leen di jottali ndigalul Cheikh Cheikh Mouhamadul Mountakha xalif général des Mourides yàlla na fi yàgg lool te wér sëriñ bi dafa wax ne jox na ndigal bépp taalibe bu yaakaar sëriñ tuuba nañu ko waxe woon démb liggéey bi nga xam ne moom lay liggéeyloo Baay Faal yi liggéey bi day war a woy suba tax na jox na ndigal képp ku ko man bu suba mu waajal ay xéewal yóbbu fa wax na nag ne xéewal yi lu mu mën a doon ci lu nit mën a jëfandikoo bu dee laaxu bisaab bu dee laaxu caaxaan bu dee ceeb leneen lu mu mën a doon rek te doon lees mën a jëfandikoo wax na ne loola baax na képp ku mu mën a doon ku koy jëfe xoolal na ko mane rek nga defe ko ni sëriñ bi nee na liggéey bi mu doon liggéeyloo bokki Baay Faal yi day woy suba ak jàmm incha allah nu ko waay mane rek nee na li tàmbalee ci laaxu bisaab ak laaxu caaxaan ak ceeb ak leneen lu mu mën a doon ci lu nit di jëfandikoo rek ku ko man na ko waajal yóbbu ko fa ndigal laa ngoog wasalaam